asalaamaaleykum mbokki réew mi ci ndigalu ak kilifteefu sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes ku gis toogaay bii nag gis alaaji Meng Diop borom Maam Ndox TV gis Pam Moussa borom PMC TV sa xel day dem ci benn bis nag mooy bis bi nga xam ni deuxième édition ba moo jot muy sargal Cheikh Seydi El Hadji si Sy radiyallahu taala anhu nga xam ne mooy borom parasol bi nga xam ni moom laa naan ko du ragal tàngaay junju la kañ lay doon mbokk yi lendemain tabaski lu tax nu koy woote xanaa sargalaat maam Maodo mi nga xam ni dama ko tuddee àll bi ndax bu sëriñ si ñii di gaynde tarixa bi ñii di nga xam ni mooy jàmbaari tarixa bi ki àll bi kii àll bi ba ñëpp di daw ci moom mooy Cheikh Seydil Hadji Malick waaye nag mu coïncide ak bi muy am téeméeri at ci biir suuf ndax deux la Alaaji Malick làqu woon ñi ngi ci 2022 Pape Moussa Diop surtout Ali Ali Bata Mbuub bi ànd ak Alaaji Meng Diop sëtu maam ndox mbaay bi ñuy sargal Seex Seydil Hadji Malick di ci woo képp ku naan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah waaye di ci woo toute la jeunesse de Tivaouane ndax bis bi seen bis la li tax muy seen bis ñu kat sunu objectif mooy bu tabaski jeexee bëgg nu kenn sol yéreem ba mu rafet la di dem ci leneen lu dul lu neex yàlla ak lu neex yonent bi ak lu neex Seex Seydi Hadji Malick moo tax bis bi mbokk yi mi ngi noonu ñi ngi woo képp kuy tàggatu yonent bi képp kuy soppe képp kuy xarit képp kuy am di jàmm ñi ngi lay woo ci bis boobu waaye sama mag Alaaji Mbengue Diop nag dina woo toutes les autorités ak ñi nga xam ne ñoo war a taxawee bis boobu jërëjëf mbokk yi sama rakk Pape Moussa Diop ni mu ko waxee noonu rek la tëddee ndax nag tabaarakallaahu ku xam PMC TV Pape Moussa Diop xam alxaaji Mbengue Diop borom Mame Ndokh TV sunu yëpp suba ba ngoon mooy fexe nu ñu defee ba xadara Seex Seydil Xaaji Malick bi àgg fépp ci àddina bi tabarakallahu ñu ci dox guddeeg bëccëg suba ngoon 24 heures sur 24 jaadu na nag bu bis jotee ñu ànd ñu ñaar ñiy taxaw nag di sargal ki nga xamante ni ginnaaw yàlla ak yonent bi moo tax ñu ne ñoo tax ñu xew ba ni xew muy kan Seex Seydil Xaaji Malick si radiyallahu taala anhu borom parasol bi nga xamante ni du ragal tàngaay junj la comme ni ko Pape Moussa Diop waxee mbokk yi may wax ni ku ko dégg sa xel day dem ci alxaaji Bengue Diop Mame Ndokh TV ak Pape Moussa Diop borom PMC mbokk yi dañuy wax ni bàyyiwunu kenn lan demee tabaski daal inchaa allahu rabbi fépp fu waay ne ci àddina dinañ sol sunu dàll ñëw ba sa kër yëgal la bis bi ndax bis bi kat ki nuy sargal kenn ku ci ne war ngaa delloo njukkal ci jëf gu jëfal ndax dëkk bi ñu ne nag bu dul woon ak Seydi Hadji Malick si bi yàlla bi ne tàtt kenn ñëwewu fi Seydi Hadji Malick rek xuus jàll kenn gungewu ko kon nag mbokk yi mu ngi noonu bépp autorité bu nekk ci Tivaouane dinañ sol sunu dàll ñëw sa kër wax la bis bi ndax ñu nag yow ñoo faram képp koo xamante nii autorité la religieux nga dinañ sol suñu daal fekk la sa kër wax la li nga xamante ni mooy bis bi ndax bis bi nag dañ ñoo ci bokk mbokk yi mu ngi noonu lendemain tabaski la bu ko kenn tardé ñu ngi leen di wax ni daal incha allahu rabbi nag dañ cee fas yéene sargal ki nga xamante ni tabarakallahu mooy le président Macky Sall moom Seydi Hadji Malick nag le président de la République tous les Sénégalais nag moo ci war njëkk nag kon nag mbokk mu ngi noonu xam naa damay bàyyi Pape Moussa Diop tëj waaye lendemain tabaski daal moom suñu bisa ah Pape mu ngi noonu alaaji le président de la république l'homme des grands la le président qui est né après l'indépendance fan koy defee moo ko fi def ci réew mi alaaji résidence bu waaye Star Rouge nga xam ne moom lañ tuddee borom bonnet carré bi foofu lañ ko defee bokk yi tàngaay du la jàpp dinañ taal climatiseur yi waaye ku yeex doo am foo toog ndax képp kuy tagg yonent bi du kenn lañ tàmbale Abdou Aziz Mbaye ba ci Sambou Cheikh Tidiane ah duñ fatte Pape Malick suñu xarit bi ñëppay ñëw Abdou Kouré Sidi Mbaye jàmbaari fàkk tëdd ji mbokk yi bis bi daal mi ngi noonu lan demee tabaski alaaji Mbengue Diop ak Pape Moussa ñu sargal Seex Seydil Hadji Malick radiyallahu taala